Bentar narik. Listen. Big up princess. Sonra ben. Lan sen nuru olmak istediğim. Nuru olsa ben. Nuru olsa ben. Les, les tièdes. Ah ouais. Ouais, il est au la tiède. Ah, le tiède. Il m'a dit, yéen yi jógee Qatar naa gi ñëw la léegi yéen mun leen ak jéem a fexee topp doo seen bopp ngeen di bàyyi ji liggéey de Mbacke Balla li nga sol rafet na de. ah macha allah. mais xëy na nee daa dem ci seet bi naan waaw man kay nuróo na ak sëñ bi waaye boo sa bàyyi koy nuróo. yóbbu dencal na ko ba ci kanam. waaw waaw ndax yóbbu ko ni ñoom nga gën a sant bu baax. alhamdulilah ndax sama jur gii fii fii fii ak yi nar a du mm. ma suñu ah, war naa pooj moom war naa fecc de. gànnaay gànnaay pire la yor de pire. asalaamaaleykum ngi ziar mbokku taalibe yëpp di ziar suñu kilifa. suñu yaakaar tay ak ëllëg di cheikh ahmadou grand mbacke noonu ñu di sant bu baax a baax ci jóg gii mu jóg ñëw fii ci Bruxelles ganesi di wax mbokk talibé yi conférence bi nga xam ne ku tedd gi bëggoon na ko amal démb ci ton hôtel comme que dafa xat dafa joxe ndigal ci euh, ci ñu dàq ko ba février prochain inshallah parce que dafa bëgg mu dollu international loo xam ne nii waa sous raison bi ñëpp dafa bëgg ñu teewe ko wante nag du tee mbokki taalibe yi nga xam ni amoon nañ yéen ay ñëw suba ñu ku ci bëgg mu ñëw ziar si sëñ bi incha allah jërëjëf. barakallah mm-hmm. Mm-hmm.